yarin wi ci kër yi ni mu fay fayiree mbedd mi école bi professeur loolu defe naa yow yaa ci gën a sori papis waaw en fait man damay njëkk euh, taxaw ci wàllu euh, notion de sécurité wala problématique ou sécurité hmm. c'est que dañoo nekk on est en 2019 le constat est que euh, sur l'ensemble du globe dañu am benn problème de sécurité je crois qu'il n'y a plus jamais ici-bas quelque part où mun nañ garantir ne y a la sécurité c'est le monde qui a qui a qui est en train de faire face à ce phénomène parce que autant tu as des moyens autant tu as des insuffisances par rapport aux malfaiteurs euh, autant manque nga ko c'est c'est que c'est pas lié justement à à la géographie à, au continent c'est un problème mondial donc ñun mënuñu ci génn euh, li muy dangereux pour ñun bu ñu nekkee pays bi ñu nekk maanaam dëkk boo xamante ne amoo doole ba pare nga war a dund insécurité am ay euh, des appâts moi je les des appâts mooy gaz bi pétrole bi ay circonstances wala ay raisons yu motiver que euh, que le pays soit euh, en orbite quoi commissaire wax na ko sànq li mu wax euh, lañ koy cerner ba pare et puis mu wax ci wàllu population bi je crois que euh, ça c'est une vieille revendication de tous les cadres de la police et même de la gendarmerie pour mm. dire que ne il faut qu'il y ait benn interconnexion entre les populations ak les forces de sécurité donc aussi bien la police que la gendarmerie mais boo xoolee par rapport à évolution insécurité bi au, au Sénégal loolu connexion ba léegi dafa ça a du mal à apprendre parce que euh, autant on le constate autant on, on ne cherche pas peut-être les, les vraies raisons qui font que euh, brassage boobu mu mënul am parce que historiquement ñun culturellement boo arriéré ay 30 ans ci ginnaaw 40 ans Euh, à à la limite rapport de peur moo amoon entre le citoyen population yi ak ak force de l'ordre mooy gendarme muy mm-hmm. policier mm-hmm. en d'autres termes pour être plus pratique boo nee woon policier mu ngi ñëw da ngay daw boo nee gendarme baa ngi ñëw da ngay daw y a jamais eu cette euh, ce confort de cohabitation ou de flirt entre guillemets avec les les forces de sécurité Euh, moo tax ma ma gëm ne il faut ñu reconsidérer la chose hmm. benn aspect bi am euh, solo mooy les populations parfois amuñu confiance parfois sur l'application de de la loi je peux donner quelques petits exemples dama am waaw bu ndaw quoi c'était au niveau de la gendarmerie sam benn nit bu ma xam euh, am kër luy woon ko benn femme ñu am ay problèmes de façon arbitraire de façon autoritaire femme bi bëgg def ay affaires ba pare moom mu dem femme bi yóbbu ko gendarmerie en plus donc moom bu mu demee le commandant a tranché jox ko dëgg mais dafa génn si euh, brigade gendarmerie bi nekk en transe c'est-à-dire di di mel ni ku daanu rab woote téléphone parce que il veut passer à la télé mais ñu ko mais lan la mu ne parce que xalaatul woon ne euh, sa gendarmerie nationale dina am taxawaay bi parce que dañ ko bëggoon néewal doole si li mu moom yóbbu ko gendarmerie pour sonal ko le commandant a tranché donc rapport de confiance dafa dafay am souvent donc en partant il n'était pas sûr que dina am dëgg alors que dañ ko tooñ et dans la pratique il a eu sur la femme mu muy jubilé quoi ne ne indépendance gendarmerie am na à ce point et que les gens font la loi euh, équitablement entre les, les les citoyens donc c'est autant de facteurs pour man yuy regrouper yuy def ne day am toujours ay dysfonctionnement am toujours ay incompréhension beneen aspect pour terminer pour ne pas monopoliser la parole mooy kumba am lay ak kumba amul lay c'est-à-dire euh, yow der tu es quelqu'un bu mu su ma la yóbboo yoon wala ci police wala ci gendarmerie à 90 pour cent il va l'insens se passer quoi bu fekkee du ay crime ay affaire yu grave quoi je veux dire. Hmm. donc tu as tu n'as aucune chance que ñu arbitrer. parce que kii dafa am doole kii amul doole da ngay am suspicion boobu au niveau de la police et de la gendarmerie xam nga ñu entre nous on sait comment ça se passe. parfois tu n'es pas di nga dem am li nga bëgg parce que ki nga ko seexal wala daf la ëpp doole wala moo la ëpp dayoo et ça risque de ne pas se passer euh, suba sa wala gannaaw suba sa nga rombaat ko. ci mbedd mi nga bëgg wax quoi c'est des choses qui arrivent. Hmm. bon ils te ko xëy na juge booy war a apprécier mooy tëj policier bi du tëj mais c'est c'est <laughs> on peut pas <laughs> la la police. Hmm. Euh, facteur bu ndaw beneen bi ci tegu bi. parce que en partant de l' exemple du commissaire mooy comme femme bu am xale bu am 16 ans. Euh, dem si kër jàmbur mm. ba ba papa yi di wax ay fii fii la fanaan nag fee lañ ko yóbbu si néegu ça veut dire que c' est une mutation terrible une fille de 16 ans il y a 30 ans xalaatoo ko ça veut dire que dafa am benn benn crise d'autorité. oui non je je mais. mais on appelle ça une fugue point. non mais fugue booy fugee du xam nga dafa ne c'est le. c'est le papa borom kër gi. Mm. moi j'invoque la l'autorité. oui euh, en ce moment ce n'est plus ay fugue normal bu fekkoon ay 30 ans si ginnaaw si suñu yaakaar day téye loxoom woo yaayam delloo ko si par force. amul xaaral ba ñëw mais léegi le monde a tellement changé surtout nous au Sénégal am crise d'autorité hmm. crise d'autorité parce que non seulement le policier il a du mal à euh, recadrer le, le gendarme mais les parents eux-mêmes mais sont démissionnaires et sont impuissants parce que ça c'est un signe d'impuissance hmm. une fille de 16 ans qui disparaît qui revient ñëw benn femme benn famille papa ji di papa borom kër googu di wax ne fii la ko di expliquer il y avait même pas d'explication c'est que la pratique la logique voudrait que mu téye ci loxoom woo ay waajuram mhm. si papis il faut souligner am na kër yoo xam ni loolu ngay wax ni ba léegi kenn xalaatu ko fa. alors Bouba. waa déedéet sa baat bi lu ko rey foofu de. Ah, laaj ñu ko yow yow yow ça se voit que tu vis dans l' autre Sénégal grippe bi ci dëkk bi yëgoo ko. ah waadu. waaw yow la. saaf <laughs> saaf ñetti fan a ngi nii. ban grippe la ah man tane naa ni sax. tane naa waaw préciser grippe bi ci dëkk bi yëgoo ko dafay tiital di. bi ci àdduna bi. ah non dans l' autre Sénégal yéen. jàkkaarloo koy seetaan. <coughs> ah et puis dëkk bi mooy lan dëkk bi c'est chez réew mi moo rëy non ñii ce sont les patrons ah c'est ah c'est le Sénégal d'en haut <laughs> waaw man en fait en fait man lu may lu may wax moom mooy pour man ah, fu ay nit nekk hmm. ay nit rek la mën a doon hmm. nit ñi fu ñu mënti nekk zéro violence zéro meurtre mënul am man damay wax Sénégal est-ce que ñun quand on se base sur acquis yi ñu am pour peut-être régler yenn dysfonctionnement yi parce que man ci foofu c'est pas pour banaliser ah pour man foofu laa koy teg parce que dañu nekk si benn réew bu xam ne si quand même assez particulier Sénégal ngay gis 4 millions de nit dem Touba dem màggal Touba ba ñëw dañ ci jàpp benn waay ju ñaar wala fukki waay gaa bu doon tux yàmba ñu jàpp ko benn waay ju doon pickpocket mais pendant 10 ans par à la limite doo gis benn crime bu fa am ay nit yu xeex jamante wala dara violence presque zéro nga dem ci yeneen confréries yi même chose mais loolu ak i la loolu pour man dañ ci war a am jàngat mooy que en réalité lan la ñu war a convoquer ba nit ñi nekk ci état d'esprit boobu tout le temps dañu nekk aussi ci 2020 et euh, ci jamono joo xam ne internet du ma wax sax journalisme balaa ñu may attaqué mais en tout cas ñi nga xam ne mën nañu mën nañu génne xibaar bu xew ah lu daan xew peut-être il y a dix ans tey bu xewee duñ la ko présenté. ba titre ko tu as l'impression que musul am fekk en réalité pour man dafa kenn mënul nekk ci benn société bu am violence zéro. Hmm. une fille bu fugee daw am 16 ans. wax leneen ak leneen ñun bi ñuy màgg yëpp bëri yàgg na ay gis ay ay femmes ay ay jigéen ñu daw. mais dëgg la yàgg na nekk ay xale yu jigéen ñu daw. fii seen kër ay film c' est pas c' man c' est pas c' du du débat réew. Hmm. du débat boo xam ne dafa war a interpellé interpeller un peu opinion bi pour man c' est des choses qui arrivent par contre bu ñu reyee benn xale taalibe ñun ñu jooy. ñu ne fi di kaas parce que on laisse les enfants dans la rue ñuy dox te kenn dugul teg ci tànk bi ne lii day fawar a arrêté donc tant que réglé wuloo problème boobu boo ci gisee ku dee wala ay six xale yu fi lakkoon wala kenn ku kuñ fi torturé mais pourquoi ngay kaas est-ce que ñun du ñun ñoo violence boobu du ñun ñoo ko teg ci kaw table bi est-ce que nit ñi am nañu quand même li ñu war a wax ñu ngi koy wax teg ko ci table bi te yàlla tax bu fi kenn pour man bu fi kenn wax ni benn xale dañ ko rey nii mais xale yi parce que ñu nekk ci biti dee nañu ba pare chaque jour nga génn fi fekk xale boo xam ne dee na ba pare parce que xale boo bàyyi ci mbedd ba deux heures trois heures du matin mu def tànku neen xamul fu mu jëm xamul fu mu def def ko sa doom mais ñooñu dee nañ ba pare et on les voit tous les jours mais kan moo jóg taxaw ne lii dafay jeex dañ leen fi jële donc histoire bi boo ko demee nettali France xam lu lay wax wala nga dem état jël naa mais c'est da ngeen di bàyyi seen xale yi ci mbedd yi à deux ans quatre ans cinq ans ñu nekk ci mbedd taxawaal effectivement di ngeen ci am ñu dee di ngeen ci am ñu ñu violé te ñu nga yëg ñi nga yëgul moo ko ëpp donc pour man il faut ñu convoquer loolu bu ñu génnee police teg fële génne gendarmerie teg fële mooy que protection wu xale yi ci mbedd bi fan lañ ci toll parce que tant que xale yaa ñu nekk ci biti tant xale yi ngi leen di bàyyi ak ñoom seen bopp lii ils sont exposés kenn mënu ci tarfatal ay donc pour man on est dans un pays boo xam ne euh, bu ñu moytuwul mën nañu peut-être euh, euh, tirer sonnette d'alarme boo xam ne peut-être que affaire bi fi ñu ko yóbbu sax eggu fa par contre man li ma gëm ba gëm ko mooy que bu ñu nee relation plus ak ak ak citoyen citoyen bi boo demee ci dëkk yu mag yi muy France muy États-Unis boo nekk États-Unis boo à trois ans xam nga 911 lu muy signifier hmm. mais 911 boo ko woowee da ngay jot nit. accessibilité bi cest à que nan la nit mën a amee problème tey jii ne kar loolu la ñu war a liggéey. Mm-hmm. te ñu nekk ci jamono tey jii nii doxal ci mbedd mi nga dajeeg di sénégalais lambda ñu si gën a quatre-vingt pour cent yi jànguñu nga ne leen boo amoon problème tey ban numéro ngay woo police du la ko wax <coughs> wala gendarmerie billaay du la ko wax est-ce que ñun ñu fi nekk sax am na ñu ko xamul boo moytu man mi xaw ma ko. c'est pas non mais donc yaa ngi naan c'est pas le 17. cest à en tout cas c'est pas automatique. Hmm. par exemple amuñu pour wax hmm. pour wax dëgg rek xamuma woon ni 17 nga war a woote. mais donc est-ce que est-ce que ñun li ñu war a def ñu ngi koy def. parce que jarul parce que nit ki mën na bëgg a bañ parce que déplacé wu dem bu police day supposé nga am xaalis wala nga am oto bu la ko yóbbu. Hmm. mais comment on peut pour que si nit ñi ñu def loolu ci seen bopp que ni la police la gendarmerie en tout cas force de l'ordre yi. dafa dañu accessible mais mhm. ñu liggéey si si se kii link boobu comme ñun Sénégal fii gardien bi ngay fay cinquante mille sax iPhone la yor wala dara on est tous connectés connectés mhm. mais utilisons ça pour pour essayer peut-être de de rendre la police beaucoup plus accessible parce que Sénégal boo duggoon kër jàmbur fii sàcc boo demee France sàcc dugg kër jàmbur sàcc boo génnee tubaab bi nii lañ lay rombee ñu ci dugg fii boo sàccee kër jàmbur boo génnee koñ bi yëpp lay dàq on a des acquis ñun ñëpp ci loolu la ñu màgg te lool bi ñu juddoo ba léegi mu ngi fi on est solidaire ci côté boobu mooy dëgg donc est-ce que ñun amuñu doox pour man amuñu loo ay socle yu dëggër yoo xam ne il suffit que ñu liggéey si loolu. dañuy gën a améliorer sécurité nit ñi. Euh, zone yi nga xam ne mooy ëpp crime yi. mais c'est même chose bi may wax ak xale xale ñu ne si bàyyi boo fekkee benn koñ boo xam ne nit ki bu jógee liggéey kaayam bi jëm ci lëndëm lay dox éclairé loo mais saa yi fu lëndëm am. mais foofu la violence bi gën a bëri pourquoi liggéeyu ñu ba nga xam ne quartier yooyu nga xam ne violence bi dafay gën a bëri quand nit ñi am yenn à la limite le minimum. donc pour man ñun suñu problème yi ñu am yépp à la solution bi. dañ ko waroon anticiper nit ñi nekk nekk ñu leen ci ay conditions yoo xam ne à la limite mën leen dimbali ci sécurité. sécurité parce que police bu ñu nee six wala sept crimes am na police résoudre cinq yi ça veut dire que cette police dañ ko wala gendarmerie quand même c'est très important.